addunaa ngi nii doom yaayi addunaa ngi nii demal maa ngi ñëw laay bu la jaralee jàpp doomu aadama ni liggéey ko ba mu sànko mbaa mu réer ay mbokkam li da ñaaw na looley wuli de ma ñëw tey seet waa ginnaaw fii ci Touba Refane ànd feeg sama doomu nday Waly TV Babacar ànd feeg ki nga xam ni moo di Babacar doomu ndayu Lamine ngi man de bëgg na la i waaye wuli de kenn demul bala ak fonk yaayam ak bëgg yaayam séeri ndey faato mbokk yi suivre lutte point com ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar Babacar la ak gis ngeen li ngeen dégg léegi Cheikh la Cheikh ñas seen talent la si way ñu koy ñaanal tey fu ñu dégg Youssou Ndour dégg fa ñeneen waykat yi yàlla nañ ko fa dégg ay ñoom wàllu si ko consort tey nag bu ngeen gisee lii da ngeen di xam ne reefan la ñu ne wulli la ñu fekk tey këram wulli deux ñu nekkoon ci màggalu reefan ñu ñaan yàlla fekk koy at yu bare baree bari ay soxnaam wër ko mais li si li si doy waar nag Lamine wulli deux bi ñu ko jëlee Lutte TV moom moo sol dàllam ñëwal boppam ba foofu mook double moteur ñoom ñëw njëkk def lool bi Lutte TV doog a commencé kon ñoom jigéen wuñu Lutte tey nag moo tax ñun itam ñu delloowaat ñu delloo ko bor bi rek ñëw fekk si ko këram mais nag li doy waar mooy tamit moom daa mel affaire bu jigéen ndax jóge na fa yàlla dimbali ko mot xam nga am na fi yaa faatu aaw baa ngi ne toog di soxnaas magam magam a ngi ne le toog awa juuf ñu koy di ko ziar suñu mag ñun tamit man mën naa ne sax suma ma tàntal awa mais wulli dama lay ziare. Babacar maa lay nuyu di la ziare di sant yàlla julli Yonent bi sant sama ñaari waajur di ñaanal sama papa fa mu tëdd yàlla gënal fi mu jóge di ñaanal sama yaay yàlla bay ko fi mu yegg fi lool te nekk ak wër di ñaanal xam nga waa Réfane ñëpp jam ci magal gi ñu jóge xam nga ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax yàlla ñu koy teewi ay ati at di nuyu ñëpp toog ci saal bi di nuyu waa kër gi di noy seex seex mi fi woy lu neex lii xam nga di ko nuyu nuyu canaar sama doomu ndey bee toog xam nga di nuyu sama yaay bu baax di nuyu sama soxna yaa xam nga di ko wax aw ma fayam na jàpp bañ a bàyyi nuyu maam ko sama jawru mag bi xam ne maanaam maanaam lépp moom la rek nam ma dara ndax moom ma nekkee fii waaw day son rek ndax man parce que mbër moom fu mu nekk moom nit ñi dañ ko fay fekk te maam lu ma joxoñ rek da koy dagg xam nga kenn du fi ñëw ba mu jëppi ko di nuyu sama mag bu jigéen awa xam nga aw ma fayam nuyu xuja di nuyu waa kër gi yëpp di nuyu waa Medina itam xam nga xam nga fa ma jógee di nuyu sama goro yi foofu nuyu sama kër gi ma dëkk vingt 25 nuyu waa Medina yëpp di leen wax ne leen Wouly 2 mu ngi ci làmb ji essence yi ñu ngi koy proposé combat incha allah rabi rafet nañ njort léegi mu sot nuyu Fallou Ndiaye promoteur sama gayen sama xarit fi la jóge sànq nii nuyu Cheikh Anta sama grand xam ne essence émission bi nii bu ko seetaanee dina kontaan trop waaw di nuyu Cheikh Anta bu baax nuyu sama mag Aliou ca Italie xam naa émission bi itam bu ko seetaanee dina trop waaw di ko nuyu di ko siyaare di ko ñaanal jàmm mu nekk. waaw di ko di nuyu daal képp kuy bëgg Wally Doo di nuyu waa États-Unis gi ma nekkoon di nuyu soom papa ak taala ak nday nuyu waa kër ga di nuyu gars yi ñoom jëf jëlin mbër yi foofu yëpp boo njaay ma li naa juum noonu la demee ah am na solo ah yaa faatu ñu koy nuyu séeri Wally ak maam ko du tamit séeri wul séeri Aliou mais lépp sotti ceeg def si la mu mel ni jotaay bi nii jege nga yaa de fu ma tuut tooñ la tuuti ah say soxna sax laay wax. sa mag nekk si côté bi di ëffal. waaw Lamine xam nga lii nii mosuma koo am parce que lii nii macha allah sama carrière ba mu débuté ba léegi mosuma am télé ñëw su ma fekk ma sama dëkk Réfane gi ma juddoo yaroo fi mage fi yàlla suturaal ma tey ñu am magal gu rëy mu jàll ci sama soxna ñëw ci magal gi xam nga mu ñëw sama ñëw fi sama famille man fii laa am ama lu dul fii Réfane man Réfane laa am mooy sama base mooy sama lépp fii laa defee lépp. kon nag bu ma fa bu ma TV fekkee damay kontaan sama xol day sedd su suma yàlla sutuma yàlla suturaal ma ma takk soxna mu fekk ko ngeen génne ko nii xam nga loolu dana may neex dama ci am kontaante waaw di di la sant Lamine di sant Babacar parce que borom baax ngeen yéen itam xam nga bi ngeen ma wooyee Lutte TV ba ba dara du dara Lutte TV kenn ñëwagu fa ma taal sama moto ñoo fekk leen fa ngeen nekk ngeen jël ma vidéo waaw man nag itam xama sama oyof te taxul ma def loolu mais nag fi tey fay ngeen ma fay ngeen ma bor bi quoi. mais li ma lay xamal daal Babacar. célibataire mbër bu ci bëgg am dara maa lay conseil waa di jàll Lac de Guiers 2 sunu grand Lac de Guiers sunu mag ñu ngi ko jàll yaam ji wàññeeku moom laa war na jëkka na tijjee parce que euh, affaire bi fii la fekk reefan la ñu fekk bëgg nañ caa dem mais fii la ñuy fekk ñu ngi koy jaale di ko ñaan yàlla sunu borom xare xare ajana yaayam te sarax bi yegg ci loxoom di nuyu sëñ Mor Ndiaye sama grand Gueule Gui production sama grand la sama xarit la moo ma woon ne ma mënu ngaa yow ci diju latte guerre bi ma ne ko maa ngi reefan waaw maa ngi koy siyaare bu baax di ko nuyu sëñ Mor Ndiaye waaw célibataire bi nag mbër bu ci bëgg am dara ah man li ma gëm mooy nga tax soxna boo amee ko bëgg ku la mën a muñal ku la mën a muñal ku la du teg benn stress benn pression ah du yàq say entraînement Babacar du mal ne bu boo takkut jabar ah man sama xaxal sama xalaat yàllaa ci jàpp waaye doo dem foog nga takk soxna eh. lu ko mooy doo dem ah loolu laa gis man eh. waaw waaw loolu laay conseillé mbir yi amul jabar uh-huh. ñi amul jabar ñi amul soxna nañ nañu ñaan yàlla am soxna bu dee làmba ji ñu ngi ci bëgg ci dara hmm. nañu am soxna su leen mën a muñal xam nga su leen du teg stress ñuy entraînement koo xam te ne day mën a joxe lekk waaw boo ko boo ko amee Babacar de man en tout cas ma yi ma toll li may yëg ba ma dem célibataire mosuma koo yëg te man xam maa loolu ñi may contacter xam nañ loolu. am na tamit loola gars yi tooñe muy Modou Lo seen roo seen takkaay si làmb tey mu mel ni da nga ko prouver sax ci sikkim bi ah. non loolu moom samay samay kii la rek lii moom ma ma dama koy ma dama koy ma koy def ma dama koy def nii rek di ko jéem a kii Modou Lo moom xam naa mooy mooy gars yi moom ñooy kii di wax rek xëy na ma nekkee xel di bëre. nit ñi ngi wax rek mais man boo ma xel waaw Modou. non ba tey sax gars yaa ngi wax de ba tey boo duggee làmb gars yi dañ ne copie conforme Modou rek la ñuy gis quoi. waaw dëgg la loolu yàllaa koy def Modou Lo Modou Lo moom mbër yu mag yi itam à part ça tafaatin mbër yu mag yi ma bokkul écrit Modou Lo laa ci mos a waxaat téléphone sama grand naa jaxate seexu naa défoncé moo téléphone mu may conseil xam nga mun naa ma affaire yooyu góorgóorlu di ma conseil xam nga kooku moom bu ñu la leen niroo mënoo koo bañ ko am pare Modou Lo moom ku sañoon niroo ku moom parce que sunu sunu grand la sunu référence la waaw ñu moom dañuy ñaan yàlla roy ci moom lu bari ba ko sax waaw loolu bañuñu ko niroo xarañ moom bañ ñu ko waaw loolu am na waaw léegi bu ñu ñëwee yaa ko wax léegi da ngay ut balaa nga demaat États-Unis di nga am komba ñu ngi dégg fan yi ñu naan euh, benn tournoi ci principe moo ko war a taxawal yow ñu la ciy dégg yaak mbër bu mel ni Jokkel bu Fatick wala Jokkel bu Kër Massar ak caat bu Boy Bambara ak Koña bu pikin Koña moom defe naa mas ngeen a laale sax yaan yéen ñaar. Ababacar. waa di ñaanal Double Moteur ndam wala dara xew Double Moteur di ah di ñaanal kéwél ndam mbëri bool yi ma li mbay juuf ndam mbëri bool yi ma li may dinaa jum comme ni ma la waxee rek ñu xam te ni dañ maa jege ñoo dama leen ñaanal ndam bu baax nga ne ma loo ma laaj léegi dañuy dégg tournoi ak Prince Production PABC maanaam wulli de Koña Jokkel ak caat bu booy bambara non kalaaf bi moom Cheikh Anta sama grand nekku fi mais Fallou Ndiaye sama xarit la sama lépp la xam nga moom sama promoteur la sama gaañ la moo ma woo téléphone ne ma ñëw sama place ma ñëw mu woo prince prince mu ne ma léegi combat la prince combat la bëgg a jox ma ne ko Fallou léegi séenante ne ko fi léegi waxaale combat ba juboo prince waxaale Fallou Ndiaye ba dégg léegi sëy prince yóbbu ma ba ci ba bu bees bi génne kayit jox ma aw kayit kese la ma jox yaa ma dégg ne ma signal ma signé benn signé mu ne ma signé waatal ma ne ko du ma signé waat mu ne ma tax ma ne ko du ma signé waat parce que gisuma xaalis te essai contrat bi ma jox liiraguma ko bàyyi ba ma dem sama kër liirlu ko door door laa wax. door a wax li may def waaw. Fallou dem dama léegi jëlal jëlal jëlal contrat bi nga dem léegi man des naa ko seere mën na ma jox benn chèque chèque bi nag boobu léegi gisaguma ko. gisaguma chèque bi ba léegi. Hmm. léegi nag man essai nii mën naa ne kon amaguma combat. samay supporter rek ñi ma bëgg ñëpp ñu may ñu may woo di ma mere ci loolu. am nga combat am nga combat bu ci ñancoo sama doom dem rek Amérique waaw ñancoo maa ngi koy siyaar bu baax moom ne California xam naa incha allah bu may demaat California laay dem ci moom sama gaayen la sama lépp la ñancoo mais ñaar am ngeen accord de principe maanaam jubo ngeen ci kaw ay wax yaag prince waaw prince juboo nañ ci kaw wax moom wax dëgg juboo nañu waxtaan nañ bu juboo mu wax mu wax ma li muy def ma wax li may def mu wax ma li mu mën ma d'accord ak moom ci lépp mu jox ma bu kayit ma signé mais ba léegi benn signature mais ba léegi xaalis gën a mu wax ma ñi may bëreet d'accord naa moom ak moom ci lépp jokkeel ci defet la jóge de nga bëgg dugg ci bagage am. waaw moom nee naa tournoi moo ñu boole kooku yàgg na ñëw dox suñu combat muy kii nii tournoi bu dee am na moo ñu boole mais bu dee combat nommé nii sax mun naa ko bay jël. foo ko teg. non bokkuñu. lu leen wutale. non dañoo bokkul. ci kaw lan bokkuñu ci nii wala ci nee ci nan ngeen bokke de. non dañoo bokkul rek. da nga ci làmb yow. non mbër la te man man temps en temps tamu maa mbër bu mbër ci defet foofu laay waxee yow man temps en sama carrière bëru maa ku ne ci defet non non man da ngay daan ma daan ñu daje man du ma jël ko nekk ci saako. waaw moom dafa ne ci dafa daanu koy te man dama ci victoire laa nekk. waaw man chaque jour ku kuy daan la ku daan laa jël ma daanee mu daan ñu daje. booy Thiès bi nag ambulance. kooku moom moo waxee waxam gis nga mbëri. lamb ji nga ne mooy ñoo ñooñu moo wax seen wax gis nga lamb ji. Ah. booy ñoo yàq lamb ji ñi nga war a bëreel. Ah. ñoo tapet ne fii gis nga lamb ji lamb ji yàquwul de. Hmm. ñi war a suñu biir ñun ñoo bëriwul suñu biir waaw mbëri mbëri yooyu ngay wax noonu noonu du ma tudd seen tur fenn. da ko war a tudd booy bu weex la de mën naa bëri man naa fecc saf na xorom bëri na mboro ambulance. moom Thiès la dëkk ma rek Dakar yaa ma dëgg moom maa koy dimbali. foo teg yaa dimbali. ma expliqué ambulance. non am na yoo xam ne bul toog sa jabar jii wala sa soxna yii toog sa biir kër naan maay dimbali ambulance ci looy dimbali ambulance da nga koo dàq bëri da nga ko doole da nga ko ëpp mboolo wala da nga ko moom ay magam sax ñu ngi may seeraan xalaatuñoo jël sama avance ba ma jógee état si rek léegi ñu ngi dox suñu combat ñu ngi dox ko combat lan lay wax li ma gën a metti mooy li ñuy wax ay dañu maa jox xaalis ma dem États-Unis man ban promoteur ma jox xaalis ma dem pare pare loolu xel nangu ko sax nit kee boo ko ñëmul nee ko ñëmuma ko ko jël ay fii la xarit jaar non non damay dégg olof naan bu ñu ne xaw ma kii bi boo ko ne ci nga bokk rek dof bi mu ne lépp maa ko moom laal ngaa melaas nga ne ay magam yan magam yan magam biir Thiès non man moo da anta laa war a bëreel moo da anta moo daan te moom mu di laaj Tapha moom moo war a jël ñu bëre. takk jabar de dégg naa dafa baax am na solo neex na te macha allah ak ya ca biir waaye bu taxee nga kontaan bay tudd la lambi moo doon te moom xare ba dara la sa jabar sa jabar yi duñ dugg si géew bi de yaa ngi leen di xool ak piis ak biti la ñuy taxaw. man dafa am dafa am fu ma samay supporter di xaar te man bu dee ay moo ñoo ma téye ci làmb ma tekki sama ngeen Babacar nee naa kon ma bàyyi làmb hmm. man li sama mag daj ci man Aliou. def ko ci man ab xaalis ba ma toll fi ma toll. bu dee moo daan tey ñoo may téye ci ay làmb ji nii ak li si ànd daj ci man ak bari jon kon ma bay làmb moo daan tey bu làmb booloon xolal dama koy daan jël bu rëy maa ko daq a bëre maa ko daq a xeex. Baye de la daan Baye Fall la comme yow balaa dóore dóoru. non Baye Mandione sama grand la Baye Mandione sama grand la maa ko nuyu passage daan na Baye Mandione ñu nay xelal lañu te moo daan tey bu làmb booloon nga xam ne moo daan tey du ma moromam maa ko mun maa ko doole maa la wax li Babacar. li ngay wax garaaw na de. aw ma ci lu may tiit moo daan te du ma moroomam maa ko mën te lu ma gëm laa lay wax ni bu lam taxaw ba ma dem préparé mu préparé bu ñu taxee ma daan ko hmm. waaw. loolu de wax la léegi nag looy wax sa kàddu gu mujj ci say supporter say soppe waaw waaw wax soxna si wax nga dëgg dama koy fàtte Lamine dem dem wokk des fois xam nga ñu ne ay bool bool dañ teraanga moom waruñu ko fàtte te soxna si maam nan la yaafaatu waaw série wulli ah, jox nañu yaafaatu Seck madame juuf Seck bi moom jaay na ko bu yàgg. jaay na ko jar na madame Diouf yaafaatu juuf laay wax de man waxuma yaafaatu Seck yow man lamin santal Seck jox nañu reer bu neex ay boisson vraiment macha allah moog aaw bu ñaawul bële maam koddu waaw. Euh, looy tàggatoo ñi lay suivre ci tv point com encore une fois tamit di leeral leen rek di la ziar di wax ne comme làmb ni ni ko gars yi xamee ànduñoo mbër mi wala mbër mi ñun làmb lañu fi nekkal dafa fekk ne nag su jël mbër jotee rek wala bu ñu war a wax moom dañuy wax ak moom pour lan pour ay nitam gis ko ay soppeem moom c'est pour la loolu na ko Sénégalais yëpp xamee noonu Wouly 2 lan ngay tàggoo soppe yi ak am di jàmm yi ci Lutte TV point com. waaw di tàggoo di di siyaaraat ñëpp di baal ñëpp ak di baal ñëpp ak du nuyuwaat sama waa kër di santaat sama soxna xam nga yaafaat di ko santaat bu baax santaat maam Kodou di sant aw sama mag di sant ñëpp di sant doomu ndey. di sant Cheikh bu wuli de di sant sama yaay di sant sama groupe whatsapp bi wuli de famille bi xam nga baw ma kenn xam na fans club bi ca naa moo ko jiite maa ngi sant sama fans club bi nekk États-Unis ñëpp xam nga di nuyu ñoom Cheikh ñoom Vieux nuyu per Laay Sungu aw ma fayam parce que ma demee États-Unis moo ma dalal xam nga defal ma lépp lekku ma jënu ma lekk jënu ma naan moo fa yor yor bu rafet di nuyu di nuyu nday nday soxna laay sox soxna taala nuyu père Talla baax sonal naa ko yab naa ko loolu laa ko doon wax benn paala bu nekk ñoo bokkoon appartement mais paa bi laa ko doon wax te du xam nga di ko wax lu ne di ko maamoo waaw man xam nga nu ma fa ma dama xappe fu ma dem rek noonu lay def damay tooñ ña fa nekk waaw di sant di nuyu waa Medina nuyu sama maire Djibi Thiaw di nuyu sama maire Bamba Fall xam nga di nuyu suñu waa kër ñëpp waa Medina rue 25. Cheikh Niass lim la way Cheikh Niass lim la neex na de. waa Cheikh aw ma fayam Cheikh mii moom kenn amul fayam parce que li ma woy ak sama soxla ak sama yaay ak samay jabaru mag ama fayam nuyu sama mag Aliou di ko wax dala jam Italie ñun ñu ngi fii dal jam xam ñu ngi lay ñaanal jam fa nga nekk itam xam nga ak ñoom gars yi ñoom Asine ñi nga dëkkat ñëpp gars yi aw seen fay ñooñu xam nga di nuyu sama booy tubaab